poste de santé Touba Oumoul Khoura euh, bokk ci région médicale de Diourbel district sanitaire de Touba euh, village Boukhatoul Moubarak waaw comme bala may dàmbali damay nuyu sama kilifa di docteur Ndeye màgget mi nga xamante ni moo nekk médecin chef bu district sanitaire de Touba euh, ñaanal xalif général des Mourides sëñ taxa mu yàgg fi loolu te wér xalif général des Fall mu yàgg fi loolu te tey woote woon journée set setal di waajtaayu màggal ci ndigalu xalif général des mourides set setalaat dëkk bi ñun suñu poste de santé ñu jugé nécessaire ni wax dëgg yàlla nettoyé waat euh, raxasaat saal yi euh, lépp loo xamante ni luy tax mu gën a leer ba gan yi buñ ñëwee seen nekkin rafet ñu jublu woon ci tey jii ci àjjuma bi wowoon woon fi relais yi woo fi bàjjanu gox yi woo fi waa quartier bi euh, ci di leen euh, sàkku lii nga xamante ni mooy poste de santé de Touba Oumoul Khoura mu nekk ci muccub ayib ba gan yi nga xamante ni ñoom ñoo fi ñëw buñ ñëwee wax dëgg yàlla fekk post bi nekk dans de très bonnes condition ci loolu la ñu woote woon journée tey bi ànde ko nag ak population bi ak euh, personnel de santé bu poste de santé bu Touba umul Khoura waaw euh, fii nag euh, maa ngi fi ñëw euh, octobre deux mille vingt et un ci affectation ci lañ ci lañ ñëwee octobre deux mille vingt et un ah, booba ak léegi nag ñoo ngi fi di wax dëgg yàlla def suñu kéemtalaay kattan ci lépp lu ñu mën loo xamante ni lu baax ci population bi luy jëmale kanam wér yaramu fii Touba Oumoul Khoura ñu ngi ci di ci def suñu kéemtalaay kattan. waaw fiñ ko fekkoon euh, euh, fekk na am ku fi nekkoon euh, ICP chef de poste ku ñuy wax Bas Basirou Faye bi ñu ñëwee aussi ñu xool ndax nit ku nekk rek da ngay xool sa moroom mi nga wutu fi mu ko tegoon nga commencé foofu mën a yokk yëf yi loolu mooy développement bi ñu ñëwee nag xool nañu li nga xamante ni mooy poste de santé bi ñu gis ni wax dëgg yàlla nécessité na ay defaraat ci wàllu infrastructure ñu jëlaat euh, peinturaat lépp luy poste bi biir ak biti salle yëpp gis ni aussi itam wax dëgg yàlla jot na bureau de consultation yi ak pharmacie am ay climatisation ci noonu ñu def ci ay climatisation également gis ni am na salle yoo xamante ni war nañu mën a renforcer lal yi ñu renforcer aussi lal yi ba am na lal yu bees yu fi nekk gis nañ aussi ni personnel bi fi nekk tamit wax dëgg yàlla am na lu ñu mën a waroon na mën a yokk ci seen ay motivation ñu yokk ko ci ay motivation ay yenn organisation yoo xamante ni interne la woon yoo xamante ni wax dëgg yàlla euh, def nañ ko fi population bi aussi itam ñu gis ni daa jaroon ñu dem ci ñoom waxtaan ak ñoom wax dëgg yàlla def nañ ko ba aderation mi ngi am ndax ñu ci baree bari ñoo xamante ni daawuñ fi fajoo daawuñ fi fréquenté léegi ñi ngi post bi loolu moom ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax tey ñaan mu jëm kanam di wax rek lancer waat appel population bi wax dëgg yàlla euh, fii kat ñi fi nekk ñu ngi fi di liggéey te ñu ko mate muy ICP bi di sage-femme bi di personnel bi fi nekk wax dëgg yàlla ñoom ñëpp ñu ngi gunge malaadi ci seen wér yaram ñu ngi leen di taxawu te ñu ngi leen di jàppale tamit lépp ci luñ mën muy wàllu social ak lépp waaw loolu daal lañ ci kii ak même daara yi tamit euh, sëriñ daara yi nga xam ne gratuité des des soins muy ticket muy euh, médicament donc bu feebar boo ñëwee dinañ la faj gratuitement doo dagg ticket te aussi doo jënd médicament loolu daal waaw man moom sama premier manquement bu may signaler mooy ambulance ndax ambulance dafa bokk ci soin ndax tey booy xool am paj évacuation da cee bokk amoon na fi sax gaa wante zone bu ne dafa am ay réalité umul xuraa nekk zone boo xamante ni day téye ndox bu tawee day taa yoon yi xóot na ñu amoon ambulance bu gàtt boo xamante ni xëy na nam waroon na liggéeyee dëgg-dëgg du ko man ndax ku ne xam na ne ndoxu taw ak ni muy def ci oto bu gàtt surtout ot foo xam ne day xóot am ay kàmb mu amoon jafe-jafe ñu defar ko fi ñaari yoon nag mu wante ba tey jafe-jafe yooyu mu continuer di ko def léegi nag ñu sàkku woon ci wax dëgg yàlla kilifa yi ci état ak ku manti doon ñu dimbali ñu ba ambulance bi nga xamante ni leen du crise yi nga xam ne dafa xaw a kawe yooyu dina fi mën a nekk te bu fi nekkee yaakaar naa day dimbali population bi ndax yenn saa yi bu ñu soxlaa évacuation dañuy woote euh, centre de santé Daaru Xuddoos mooy jéemul foofu la ambulance bi di jugee pour mu mën a ñëw ñu évacuer suñu malade bu ñu sañoon daal am suñu ambulance bopp boo xamante ni day méngoo ak configuration dëkk bi ni mu mel ci wàllu ndox ak yooyu xaw a kawe tuuti pour ñu ci jàppale malade yi ba bu ñu demee ba malaat boo xamante ni day war ñu ko war a wax dëgg yàlla ñu def ca matuwaay yi ca war bañ a di xaar temps boobu nga xam ne ambulance bi day jóge fee ñëw fii loolu daal cri de cœur la bu ñu doon lancé beneen bi ci topp mooy soxla nañ aussi échographie ndax fii aussi soxna yi nga xamante ni dañuy nekk ci jigéen ñu wérut ñu leen di mën a xoolal seen ëmb ci wàllu écho ñi nga xamante ni aussi dañuy def ay avortement la même chose moo tax échographie moom aussi itam soxla woon nañ ko ndax day jàppale post bi bu baax baax am na sax ku ñu ngi koy def dans chaque 15 jours wante wax dëgg yàlla bu ñu sañoon hôpital bi am échographie boo xamante ni saa su ne mu ngi fi ba malade bu ñëw mu ne xam ne urgence la moo xamante nii dafa war a def écho kii ñu man ko ko defal ci condition yu mucc ayib. waaw lu mel ni ambulance moom wax dëgg yàlla soxla nañ ko lool. te lu lu lu lu fi lu lu urgent la mën naa ni ndax euh, malaat moom ak ni muy ñëwee am na ci ñoo xamante ni du ñu mën a xaar nga ngay jël benn temps bi ci ñoom pour évacuer leen donc moo tax ambulance bu bu bu mucc ayib daal bu ànd ak dëkk bi boobu moom soxla nañ ko fii ñu toll ci umul xuraa waaw waaw waaw xam nga évacuation moom ñun buñ soxlaa dañuy woo jéemul ñoom ñoo ñuy jàppale jéemul aussi yenn saa yi mu am jafe-jafe foofu ndax ambulance bi mën na génn dem ci yeneen poste yi daaru tanzil euh, may nuy de passage docteur Fall bi nga xam ni mooy médecin chef bi moom aussi dañuy jàppale yenn saa yi dañuy am évacuation woo ko mu ñu abal ñu seen ambulance ñu ñëw wante daal yooyu yëpp li ci gën mooy ñu amal ko suñu bopp ba buñ ko soxlaa malaat bi moo xam malade bu yàkkamti la moo xam malaat boo xam xëy na dina mën a xaar tuuti ñun ñu jël suñuy matukaay évacuer ko suñu bopp wax dëgg yàlla loolu moom moo ñu gënal waaw waaw dool la xam nga système sanitaire moom dafa am lu ñuy wax pyramide sanitaire pyramide sanitaire ni muy doxee ñun booy xool tey euh, centre de santé jéemul mooy moo ñu mooy mooy moo ñu yilif ci ci waaw collaboration la ci wàllu hôpital Matlaboul Fawzeyni tey bu ñu mën nañ leen a woo mais li gën ci wàllu pyramide sanitaire mooy dangay woo centre de santé parce que centre de santé moo coiffé poste de santé yi comme moo coiffé poste de santé il faut que centre de santé ngay man a wax dëgg yàlla euh, yuuxu wallu foofu ñu man la jeex na dafa am jaarukaay boo xamante ni dañ ko war a respecté euh, ci wàllu pyramide sanitaire la bokk waaw léegi na ambulance boobu moom loolu bokk na ci li gën a tax mu am ay jafe-jafe bu baax la nag wante ci kaw tali la mën a jaar ba tax na ñu ngi sàkku ci kilifa yi wax nañ ko waxati ko mooy tali bi nga xamante ni moo yem ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall gi ak si ba ci poste de santé bi ndax su boobaa lépp lu ñu bëgg même bu fi ambulance beneen ñëwaatee day gën a yombal liggéey bi ndax ku xam évacuation ak malaat yenn yëngutu yi ci biir ambulance bi tàmmuwuñ ko donc tali boo xamante ni wax dëgg yàlla dina mën a jóge ci post bi dem ba ci hôpital ya moo ñu gënal ndax boo wàccee kër xalifa général des Baye Fall diggante bi yëpp suuf la te day taa day am ndox yooyu yëpp ay jafe-jafe la yoo xamante ni ñoo ngi koy dund ñu sañoon daal tali bi mu nekk agsi ba ci poste bi accessibilité bi gën a mën a yomb population yi gën ci mën a gis seen bopp aussi tata yi nga xam ñooy taxaw fee muy vert yi ñu fexe ba seen garage bi ñu mën ko xëcc ba ci poste de santé bi fii loolu aussi dina yombal maladie seen déplacement te dina yombal suñu liggéey fii ci poste de santé bi waaw loolu aussi man bu ñu sañoon salle d'accouchement euh, ñu ngi prévoir xool nuñ koy mën a euh, créer feneen foofu moo nekk noonu génne ko nga xamante képp koo xamante ni kuy waaj a am doom la salle bañ def salle d'accouchement foofu lañ lay dugal bu fekkee nag dangaa dem ba sa euh, ëmb mat ñor ñu dugal la ci salle d'accouchement bi moo tax bëggoon nañ fay yokk benn salle d'accouchement boo xamante ni wax dëgg yàlla mooy mooy mooy mooy mooy dina dimbali malade yi salle bi nga xamante ni fi la ñuy def malade muy médecine foofu aussi bëgg nañu yokk foofu beneen salle xam naa boobaa dañuy euh, def refection changé génne lu mel ni pharmacie bi ci biti euh, nga xamante ni malade yi dinañ mën a tëdd foofu ndax yenn saa yi su malaadi yi ñëwandoo surtout période nawet da am jafe-jafe pour di leen tëral da ngay obligé mat laa ci suuf ñoom malade ñu tëdd fi te buñ sañoon daal saali yi doy comme ni ñu ko waxee salle d'accouchement bi aussi ñu génne ko nga xamante ni foofu aussi maternité du am benn problème ci problème mu lal ak yooyu. waaw kuréelu Touba ca kanam bi ma fi doog a ñëw bind naa ñaari yoon lettre benn bi nag répondre nañ ko wax dëgg yàlla am na ay lal yu ñu ma fi joxoon lu tolloog sept wala huit lal yooyu sax ñu ngi ci ñu ngi ci salle yi. léegi nag euh, beneen bi ci des mooy ambulance aussi ñoom bu ñu ci mënee jàppale bu ñu ci mënee jàppale ci ambulance échographie aussi dañ koy joxe dañuy joxe matériel pour bureau consultation. bu ñu sañoon tamit matériel yooyu bu lu ci waay man rek nga def ko ci bureau consultation yi ndax aussi euh, ñoom dañ koy joxe euh, def nañ demande bi xëy nañ ñoo ngi xaar waaye ñu ngi lancé waat ci message bi ni leen poste de santé Oumoul Khoura soxla na yi nga xamante ni moom laa jot a lim sànq nii. waaw waaw wàllu éclairage moom macha allah wax dëgg yàlla boobu moom dama ko fàtte sax demande bi ma defoon Touba ci kanam boobu wuyu si nañ ma ba. ci post de santé bi ba jëm ba marché ba éclairage yooyu fi ne poste Touba ci kanam ñoo ko fi indi ci demande bu ma defoon wax dëgg yàlla ak mbedd yi wër post bi yëpp foofu moom post bi guddi moom macha allah ndax danaan lëndëm ba des fois maladi dañ doon am problème wala sax waxuma la maladi waaye population bi pour jaar ci yenn secteurs yi Touba ca kanam nag ñëw nañ fi wax dëgg yàlla indil ma ay làmp ba leeral na dëkk bi boo xoolee fii ba marché ak li wër poste bi guddi bu la neexee boo sànnee puso sax daanaka boo ko xoolee di nga ko gis loolu tamit ñu ngi leen ci sant baax di leen ci waaw loolu nag moom daanaka euh, pers euh, population bi nga xam dañoo jege poste bi te yenn saa yi duñ fi sax xëy na bu njëkk la gënoon bari waaw bu njëkk moom waaye léegi wax dëgg yàlla ñu ngi ciy sant yàlla ba daanaka ñu ci baree baree bari jéggi woon ñu di dem feneen. waaye nag lu ci ñàkk ndax euh, benn benn waaye nag ñoo li ñu leen di wax rek mooy ñu xam dalal seen xel ci hôpital bi xam ni euh, ñi fi nekk di faj ay taalibe lañ ñi fi nekk di faj ñu mën seen liggéey lañ ñi fi nekk di faj ay personnel qualifié lañ te taxaw bi war ci malade yi saa su ne guddeeg bëccëg ci lañ nekk donc ñu leen ci lancé waat appel di leen wax ni wax dëgg yàlla euh, fu ñuy jéggaani dem rek lu ñu fay def rek wax dëgg yàlla mu ngi fi te amaana fii fi lañ leen xamee fii mooy seen seen poste de santé ndax campagne rek bu amee tey ñoo leen di jox moustiquaire ñoo leen di jox médicament ñoo leen di ñàkk ñoo leen di jox lépp kon ñu xam ne nag post bi seen poste la ba taxawaay bi ñu ci war a am rek ñu am ko leen ne nag manque information lay doon souvent information yu bari duñ ko am waaye wax dëgg mi ngi wàññeeku daal mi ngi wàññeeku daanaka booy xool sax dama mënu ma ni amatul mais daanaka tuuti personne ñoom ñooy fii jógee di dem feneen te ñooñu aussi dañoo ñàkk xam rek waaw négliger boobu moom moom laa gën a bañ loolu la naan bu naan samay rab loolu lay bañ ba tax na ba ma fi ñëwee moom bi ma njëkk waxtaan bi ma njëkk a def ak ñoom loolu la mooy ku toroxal malaat wala ku négliger malaat ma ne leen ku ko fi def moom danga may waaye nag wax dëgg yàlla booba ba léegi gis naa ni ñu ngi ciy def suñu kemtalaay kattan commencé ko ci man damay neexal sax malaat daf may tooñ sax ma koy neexal waaye loolu lépp suñu position moo ñu ko moo ñuy permettre ñuy def loolu di di di naxtaan ndax ñu bari dañoo xamul rek waaw wax dëgg yàlla ñoom it ñu ngi ci ñu ngi naxtaan wax personnel bi naxtaan bu ba malade ba daanaka daal jafe-jafe yooyu moom wax dëgg yàlla man moom wax dëgg dégguma ko fi benn yoon nag ñoo xamante ni dañuy ñëw malade naan taxaw bi nangam loolu moom wax dëgg yàlla xaw ma ne amoon na fi waaye fi mu ne nii moom moom wax dëgg yàlla loolu moom ñu ngi ci sant yàlla. waa xam nga malade itam yenn saa yi xam wante fii moom garab yu cher moom daanaka malade dañ ko ndax euh, malade daanaka booy xool ñu ngi wér. te euh, wér gi moo am solo te tamit wax dëgg yàlla ñu bu ñu doon wax ni seen garab bi dafa seer garab yi dafa seer garab moom dafa am ay prix yoo xamante ni moom nga ko mën a fixé moom rek nga ko mën a jaayee waaye fii moom dégguñu ko fi xëy na nag feneen waaye fii nag ay jamono nag xëy na waaye fii noonu moom dé moom wax dëgg yàlla dégguñu ko maladie ci boppam ñoom faj mi dañ koy approprié wu te wax dëgg yàlla retour au ma ci retour ordonnance bu cher wala nangam nangam wala bindal nañ leen lu mënul ñàkk déedéet xanaa kay fajo ba pare rek sant ak euh, sant ci taxawaay ak yooyu te loolu ñu koy sante yàlla di ñaan loolu continuer waaw social moom euh, daf fi am ndax yenn saa ñu bindal nit ordonnance mu ñëwaat ci bureau bi wax ñu boppam bu ñu waxee boppam euh, liñ mën mooy li mu am moom ñu ñu ñu ñu jël ko te lépp loo xamante ni moo aja ci fañ mi ñu def ko ndax ñun aussi dañ fi nekk pour malade yi di wér du xaalis bi la wante taxawu leen daal euh, ndax sëriñ daara yi ku xam fii umul xuraa pratiquement soixante quinze daara yoo xamante ni ay danga lañu ñoo xam buñ ñëwee duñ fay garab duñu jënd ticket loolu ku koy def moom yaakaar ne yaa ngi social même adulte yi nit bu ñu la ñëwee bindal la garab boo nee am ma garab yi bu ñu waxtaanee liñ ci mën a jël ñun dañ ko ci jël te loolu du am benn problème ndax loolu lañu fi nekk. waaw loolu mooy campagne yi ñuy def euh, maa ngi ciy profité ci occasion bi sax. Mm, di sant euh, sama équipe yi ma ko àndeloon muy waa poste de sant bi ak relais yi campagne moom mooy CPS bi ñuy def ak yeneen yi loolu garab yi nga xamante ni ñoom bu ñu tawatee moom la ñu fekk kër docteur ñu leen koy jaay wala boog sax ñu leen koy may muy ACT daanaka même garab yooyu moom la ñuy génne di ko jox ndaw yi relais yi ñu koy joxee garab yooyu amul benn problème ndax lépp lu ñuy wax ci euh, feebaru paludisme garab yooyu moom moo koy saafara. kon daal population bi ñu defaat euh, amaat confiance ci këru docteur yi tey xam ni ñoom lu seen wérgu yaram rek moo leen soxal seen seen seen jàmm yaram rek moo ñu soxal amu ci benn garab boo xamante ni day indi jafe-jafe wala day indi ay lor ñu koy dugal ci population bi di leen ko jox lenn la comme ni ma wax noonu manque de communication la ak ñàkk xam xëy na moo tax yenn yi ñu di ko wax mais mi ngi changé wax dëgg yàlla ku xam campagne yu njëkk yi ak campagne yi xam ni population bi ñu ngi adhéré wu ci médicament yi loo gis nag xëy na dina am benn temps bu mu jël waaye gis nañ ni daal saa woo saa mi ngi gën a changé popul nit ñi ñi ngi gën a jël garab yi ñi ngi gën a xam njëriñu garab yi te loolu rek moo nekkoon jublu bi ñu ñaan rek mu dem ba marché ci ñëpp ñëpp di ko jël te yenn explication yi aussi ñu bañ di ko kii waaw xanaa bi ci jiitu mooy damay sant sama personnel nga xamante ni jiital ci sage-femme bi muy Ami Sène euh, Yaliya Kan mi nga xam ni mooy dépositaire bi daaw Daouda Seck ku lim juum waa ah, ñi fi nekk ñëpp ay Ndéla ah, Fat Dem Ayda mënuma lim daal sant naa ñëpp waaw wax dëgg yàlla ci seen taxaw ci niñ ma gungee ci liggéey bi may liggéey euh, sant aussi population Oumoul Khoura particulièrement ndax euh, yaa ko gis sànq nii bi ma wootee set sal bi ñoom ñoo fi ëpp ñoo ñëw jëlal ko seen bopp di ko di ko defal seen bopp fayu leen si dërëm ndox mu sedd rek sax laa leen jox te bu ma leen ko joxutoon sax daanaka mën nañ ni dinañ ko defal seen bopp ñoom daal jël nañ poste bi def ko seen mbiru bopp xalaat bu rafet bu ñu am dinañ ko ñëw wax wax ma ko lépp lu ñu bëgg ci post bi ah maa maa ngi ci maa ngi ci ànd ak ñoom di leen sant bu baax ci seen engagement ci post bi te xam ni euh, wax dëgg yàlla euh, maa ngi yëg lépp te maa ngi leen ciy sant di leen ci gërëm te wax ni. màggal tubaab yi li ma leen ci lancé ci loolu surtout mooy ñu fexe ba kër yi dalal gan yi bi ci njëkk mooy nañu am ay moustiquaires imprégnées ndax màggal gii dafa tombe ak nawet te ku ni nawet ni yoo ku ni yoo ni siburu ñu jëfandikoo ay moustiquaires imprégnées lalal ko gan yi en même temps di raxasoo seen loxo ak ay alcogel ndax ba léegi mën naa ni feebar boobu ñuy wax Covid jugu fi te paludisme ba aussi mu ngi fi te fexe dëgg yàlla dalluwaay ñu fexe ba mucc ay fépp foo xamante ni yow mën na fa nekk ñu fexe ba jële ko fi kër yi bu amee ay ñax ñu bay ko yooyu yëpp daal prévention la boo xamante ni dina jàppale kër yi nga xamante ni ñooy dalal gan yi dina jàppale aussi gan yi ba ku ci ñëw bay ñibbi wax dëgg yàlla doo am benn problème wala doo fi jëlee lépp loo lenn loo xamante ni ci dëkk bi fii nga ko jëlee yóbbaale ko waaw xanaa sant bu baax waa SAT info ci dalal bi ñu ma dalal ak en même temps ni ñu jëlee ñëwee ci bis bi ànde ko ak man muy journée SAT Séral bi sant sama personnel bu baax personnel bi maa ngi leen sant bu baax a baax a baax ndax wax dëgg yàlla amu ci gisuma ci kenn koo xamante ni day tappale ci liggéey bi wala ku nanguwul liggéey la ñoom ñëpp dañuy liggéey te dañoo bëgg liggéey bi te luy jëmale poste bi suba ak ngoon ku dégg bëccëg ci la ñuy dox dinañ def sax ba def lu ñu mënul ndax yenn saa yi ku ne xam na ni poste yi jamono ji yenn saa yi mu am benn période boo xamante ni waaw day am nu mu demee waaye ñoom liggéey bi dinañ teg nañ ko foo xamante ni même bu jafe-jafe yooyu sax amee dinañ liggéey te duñ la ko woon te wax dëgg yàlla dinañ saa su ne ñu may woon seen engagement ci fii nga xamante ni moom mooy poste de santé bi Touba Oumoul Khoura personnel bi daal moom gàcce ngaa laama sant naa leen bu baax gërëm naa leen ñëpp nag ka ca kaw ba ki ci cat li ñoom ñëpp maa leen sant di leen gërëm jërëjëf. Cheikh yi tey moom dama am invité yu spécial ñu bëgg lu neex am guute sell te yow rekk laa ci woon. man rek ah loolu riche na man rek ci xale yeeya. waaw.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 هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر سلام